ak ku ñuy wax euh, du Ba ñoom ñëpp ñu nga ca euh, Facebook ba ab alaaji di déglu. Facebook ba macha allah alaaji ni nga nga mel. Hmm, nan laa ah? Hmm. Ah, fii de moom li lu rafet fii daal alaaji nga mel. Hmm. ah lii de moom kon gars yi xaw ma sa da ngaa am taalibe ci rési bi ma. waaye waaye fii de moom tabarkàlla. Jibril allah. ah kon de fii de tabarkàlla li nga sal de tàkk na macha allah. macha allah. macha allah xanaa lii mooy la la oustaz talas su joxoon. talas talas moom la may ñaan ma bañ. may maa ngi nuyu alaaji Gomis Gomis sama doomu ndey sama xarit Gomis mi nga xam ni macha allah mooy euh, euh, reporter nu ma ko mën a tuddee sax li ñu jox saajo Mané démb su ma sajoon ma ni maanaam raaya boobu Gomis yayoo na ko dañoo waroon a yóbbaal ay reporter alaaji maanaam fal ko mu nekk meilleur reporter ci wàllum sport hmm. moom Gomis mii nekk ci Walfadjri alaaji ndax gomis xereñ na macha allah gomis liggéeykat la alaaji hmm. amul alaaji mooy lan non dama xam ni reporter bu échec nga ma wax rek <laughs> ki ma wax di <laughs> kan moo échec reporter bu échec la Gomis laa mës gis seul reporter. Gomis boo xamante ni bi entraîneur ba dafa jël coupe d' Afrique. joxoñ la ne coupe d' a ngi nii. waaw loolu ndam la alaaji. nga ànd ak sa coupe nga ànd ak sa sa coach mu dem ba dem di wuti ji ndam. parce que wala ba nga wuyu reporter yi bari mais lan moo tax mu jékki-jékki woo ko reporter yi bari na ba de. Gomis fii la doon toog ci télé bi mel ni ko xam football. non non da doon analyse rek man dama lay xëñ leer. mais da doon analyse. daal ne Aliou Cissé bi ñu xamul dara. da doon analyse rek alaaj. yaa ngi dégg daal ne duñu sax génn premier tour moom Gomis. kan Sénégal dem. loolu ana preuve bi. mi ngi ci kii mi ngi mi ngi. déet instant bi mu loo wax layal. archive bu war fay. ban archive déet déet. Eh, boo boo xoolee gis. non loolu doon analyse rek. waaw du ñu dem fenn. waaw Aliou Cissé génn première tour. Ah. mu ne premier match la ñuy toog. Ah. mu ne quart finale. waaw ñu dóor quart finale. et. Eh? yow Gomis def vidéo. mu ne demi final bi mënuñu ko ñu dóor final. yow yow àdduna bi yëpp di gis. Ah, dama déglu ba muy lëngoog Aliou boobu dafa jaaxal. déedéet non non non non. muy lëngoog Aliou Cissé. àdduna ko daaw eh, eh, eh, ma. non àdduna bi yëpp ñu ngi doon gis Gomis. waaw dëgg may déglu def vidéo daan ni coupe bi dañuy ànd ak moom dem senegal loolu oh, mais avant ñuy dem lu mu wax. Ah, ñuy dem lu mu baax na. ah Alioune Kara Gomis. waaw dama lay wax ne la. moom dañ koo jox équipe fii ci kër gi. ku jox équipe. Gomis Gomis. waaw Walfadjri mooy beñe presse bi. waaw fu ñu fekk duma ñu. waaw site internet yi ku ci kuñ ci dóor sax ba nga sonn nga ne naa jël Walfadjri seerlu. waaw Walf la ñuy woo seerloo ko. waaw yow da ngay dem fee ñu dóor lu dóor lu métti. nga ñëw jël Walfadjri seerloo ko. te lépp Gomis moo ñu ko teg. ah mënul bàyyiwul équipe bi. joxul ñi nga xamante ni bi am na ay compétence te buñ ko joxee budget budget bi du ko du ko jox xale yi euh, xale yi buñ demee dañuy wër di ñaanaatu ay ndox. waa léegi waxuñu comme day lekk li nga xam bi xamante ne bi moom demee ba mu demee ci ci ma yeggale. reporter yi bari na mu taxaw daal ni ko Gomis. waaw mais c'est parce que moom moo gën a critiqué. non non Gomis la nga def. Ah. ma ne. déggoo ma. waa ji. Gomis man moom laa doon wax moom Gomis. caaxaankat kuy wër caaxaankat ba yegg si moom booba taxaw fii lañ fi dajale gars yi génne budget commission des sports bu Walfadjri waaw génne sept millions teg ko ci loxo Gomis mu lekk ko sept millions ni ko foofu melest ko alaaji nag instant yaa diffamation ngay def de diffamation ban diffamation sept millions yu yu lekk waaw 7 millions yoo xam nga bi ñuy yëg li mu la def ci suuf moo la metti 7 millions daal di ñëw ko ak wala te 7 millions yooyu il faut gën wax fan la xaalis bi ne yow 7 millions ku ko joxe administration ñoo ñoo daje administration ci pour jëpp dogal waa xam nga non waaw bi man ko kon na dégg naa yaa de sport wal fajiri waaw dañu dégager un budget de 7 millions budget de 7 bi Gomis ne moom moo koy kii moo koy téye maanaam li yéen ci ban kii ngeen lu ngeen doon football bañ di génnee budget 7 millions. lan la maanaam tournoi la wa tournoi la lan la. c' est que pour mayo yi. kii ay caaya ak la dem. jënd góor sa jënd sa ko jënd booy xool ay muusu ndox yu tàng la leen di tegal. ah eh, waaw baax na bu ñu demee ba ay Seneweb site yi nga xamante ni bii site yi ku ci jàq sax go kuñ ci dóor fële nga mer ne naa jël wal fajiri serloo ko pour sa waa kër kontaan te te espoir yi ñu koy dóor moo garaaw ah Seneweb ñaat la ñu mujjee dóor Sene est-ce que du xawma trois wala quatre non voilà yaa ngi ndax diggante trois quatre waaw ah. te il paraît que gars yi bañ nañ sii bi mais yow mi yaa dafa jënd entraîneur dafa jënd arbitre bi arbitre bi ne ko lii rek laa ci. léegi lu tax nga xoole si bi lu <laughs> bi si bi bi <laughs> wax affaire xam nga ñaata la woon dix dix zéro la woon <laughs> bit yëpp bit la arbitre de vraiment. lillaay war a suuri. saytu dafa dafa xoogaay. xoom mooy ah. ah, ci kër gi fan. Ah, fi yow ñu fal la nga. dañ ma dañ ma fal moom équipe clandestin la def dañ ma fal. Hmm. muy lijjanti ay match clandestin ci suuf di football. ah oui ah, waaw alaaj loolu fi ma gis xaalis bi ñu dugal ci sport bi ci kër gi xaalis boobu la la la bëggut a bàyyi. alaaj yaa ngi diffamé de. man diffamé li may wax na ma yóbbu na ma woo fu ko neex. na ma yóbbu fu ko neex ay accusations graves. j'ai des preuves dama yor papier yeeg yëpp. ah xëy ci taaba jële lewar xëy na yomb na ko yaay këyit ngi nii xam nga lii moom kenn du ko weddi kenn du ko gis di ko weddi mi ngi nii ñu ci Facebook bi ngi nii kenn du ko gis di weddi waaw waaw dëgg la mi ngi nii leer na ah li may pro ah oui les contrats sont là dix yaa ngi nii kenn du ko gis di ko weddi les dix millions yi ko jox mi ngi nii Asawra 7 millions mi ngi nii ah. gis nga ko mi ngi nii ci suuf 7 7 millions les 7 millions donc am na loo xam ni sooy ñun duñ ko caaxaane xaalis bi nga xamante bi moom la gomis jël Euh, di def naka sudul man boo paree Oustaz Assane Diouf laay gis ba xam moom bokkoon na ci ñi signé woon 7 millions yi euh, ma gis Moustapha Diop après dinaa gis ki nga xam ne mooy Moussa Faye non daa dem ci Cheikh laaj ko en tout cas parce que lii moom bu dee ñoom ñoo ko signé dinañu wax léegi yan may ko lii lii lii Gomis li mu waxoon dafa waxoon ay équipement ay crampon ak affaire yooyu ak ay balak et cetera dafa ñëw def bilan waaw bi mu defee bilan ne lépp ak tamit bu ñuy dem kaar yi ñuy léeg et cetera yooyu yëpp daf ko wax. dugal ko ci biir yaa ngi dégg waaw. da ko ci biir sept millions yi ak tamit bu ñu demee euh, di football parce que waxoon nañ pour dem football def ay stage mbuur ak yooyu yëpp te gomis bi demut mbuur demut fenn moom dong moo demoon mbuur ak jabaram. gomis day nootee xaalis équipe bi. <laughs> voilà. waaw jaaxam jaaxam kat la parce wax ji yëpp dama koy woo jotuma ko xam naa ma nga petit déj moo tax jotuma ko sinon kon yii yëpp du kii gomis loolu dina après alaaji lundi incha allah dinaa indi gomis fii maa leen ko dikk ñu laaj ba xam 7 lañ ko la ko administration bi jox ci yenn critères loolu dañu ko koy de parce que waaw baax na parce que sooy ñun duñu wax lu am waaw baax na waaw ba lundi papier yaa ngi nii papier yooyu waaw léegi li ma jaaxal papier <laughs> xam nga yow xam nga yow da ngay saboté <laughs> da ngay saboté da baa ko indiwaale c'est parce que kii bi dañuy waxtaanee moo tax mu indiwaale papier yi papier yaa ngi. Ah, baax na wax lu ñu amul preuve. na voilà. jaajëf alaaji kon mi ngi noonu xam naa ni euh, ñuy jaajëfal itamit ak a suñu euh, ku mel ni coach bi ak euh, Sadio Mané daf mel ni am na ay raaya yu ñu leen jox waaw macha allah mu mel ni lépp rek day delluwaat ci Afrique di leen ñaanal yàlla jàmm defe naa bu fekkee am nga loo ci wax rek ñu doog a dem ci élément bi parce que tey moom xa tey macha allah xaw naa ci. ñii sax ñu ngi déglu réclamer ba Gomis démission ci poste bi. ñan ñoo ko réclame Facebook bi. <laughs> gars yi Facebook bi. <laughs> gars yi réclamer nee na Gomis da démission ci poste entraîneur bi. <laughs> non non non gars yi bu leen def non xaale ba Gomis wax ba pare na Gomis wax ba pare. saa indi na ay ay. waaw sooy sooy xam nga.